diggante Siteu ak euh, ki nga xam ne moo di Lac de Guiers coow bëri woon na lool waaye ki nga xam ne waa jàmbaar mujj na décrocher euh, combat bi père ak Lac muy euh, combat boo xamante ne nii combat bu am solo la. yoon wi gudd na. ndax war na jege suma juumul trois mois wala lu ko ëpp. léeg sax ay site internet bind na taxaw na mais ñun ñu àndoon ceeg professionnalisme boo xamante ne nii bugguñu di wax loo xamante ne ni wérul moo tax ba def nañ fi benn lëndi boo xamante ne nii euh, ne nga ma père ma ne la naam nga ne ma dégg nañ ne taxaw na est-ce que taxaw na ma ne la daal euh, am na ñuy wax waxtaan wi sori na bon xëy na dans la semaine yàlla mën naa dogal ñu finance ñu ñu finaliser ko d'ailleurs looloo tax euh, biñ ko finaliser démb. loolu mooy li nga xamante ni moo wér parce que am na si ñoo xam ne dañu yàkkamti rek ba di joxe information yoo xamante ni wérul mais waxtaan wi sori woon na du woon benn promoteur ay promoteur yi ci nekkoon bon ñenn ñi dañ ne bëgg nañ Siteu mais beneen adversaire lañ bëgg du Lac de Guiers bon am na ñu ne moon moo Balla Gaye mm-hmm. am na ñu ne moo Ama Baldé mm-hmm. am ñu ne bëgg nañ moo Gris Bordeaux mm-hmm. mais xam nga nit boo yoree mbër di defendre ay intérêt mm. euh, lépp loo xam ne da ngay xalaat ne mën naa doon gàllankoor da nga mm. ko war a éviter. Mm. ba danaa ci tudd sax waa maa aussi waa T waa TFM bi ñoom bëggoon nañ Siteu ak Ama Baldé bi ma maa aussi se woowee laaj ma ma ne ko boobu combat la même Ama dafa am contrat te dañuy bañ mu signé ñu signé moom diggam ak Siteu ñaari mbër yi bëggante nañ mais mën nga signé toog di xaar te toog di xaar boobu baaxul. si waaw non dafa wóor parce que moom bu ko bu la contrat jiitee ndax moom moo Gris Bordeaux. Mm-hmm. contrat dox na ci seen diggante. Mm-hmm. contrat yi ko au niveau du CNG. diggam ak Modou Lo. Mm-hmm. contrat yi ma nga dugg nag muy doon troisième contrat su boobaa yéen ñi nga xam ne yéen ay ménager mbër mi. di défendre seen i int di ay intérêt su boobaa yoon da leen di jàmm. ndax dañ naan loolu waru leen ko woon def ndax bi ngeen ciy dugg xamoon ngeen ne am na ay contrat. moo tax ma ne waa TFM ne ma wax nga dëgg. Mhm. Euh, dem na sax bañ ne ma mais est-ce que su bëreeg Ama ba noppi ma ne ko loolu ba tey xel nangoo ko ndax dañ daal dañuy bëgg daal koo xam ne dañuy jël combat am préparer dëgmal combat bi ba mu jeex ñu dëgg xaatim leneen mais taxul waa jàmbaar yi bàyyi nag. Mhm. doon ñoo xamante ne nii. topp kombaa bi rek ndax <coughs> Pape Thialis Faye bu Leewtoo avancé woon na ci moom it. Mhm. bëggoon na ko ndax démarché na ko wax naa ñun wax naa waa Kër Kaaw la dageer yi. Mhm. mais finalement daal ci waa jàmbaar yi la mujj sottee. Mhm. démb lañ ko mujj finaliser. Mhm. ci présence su ñaari mbëri mais tooguñu nag benn yoon. ndax li tax tooguñu ñun bëgguñu di def loo xamante ni g dañu ciy jam. te ki démb bi ñuy jël mesure yu bees yi. Euh, ci face to face xam nga dañ ko arrêté woon. Euh, mais. jusqu'à nouvel ordre la ñu waxtaanoon. Mhm. léegi nag les composantes de la lutte yëpp lañu ñu woowoon foofu ci arène nationale ñu toog waxtaan yan mesure la ñuy jëlaat pour mën a continuer waat face to face ba violence du am. Mhm. yàq du am. lu mel noonu lépp lañu tënk parce que démb seen présentation bi ni ko gars defee macha allah rafet na parce que déggoo ci lu ñaaw déggoo si lu luy gaañ parce que euh, Lac de Guiers wax na après Siteu ñëw wax euh, jàppoo ne format boobu suñ ko jëlee pour def ci face to face bi nekkul luy arrangé waa. waaw xam nga loolu am na lu muy demee li ñu naan bu ndox tuuroo an bàq des. Mm-hmm. léegi ginnaaw ba bu mbëri jàkkaarloo. Mm-hmm. tuddee ko face to face. Mm-hmm. mbëri amuñu fulla di jël seeni responsabilité mbëri yow waroon am fulla nekkat yéen su may xarit ngeen su may frère ngeen samay mbokk ngeen mais man maa opté doon mbër di ci gagné sama vie di ci ànd ak mbooleem ku ci wërsëgam ne ma ma dimbale la ci mm-hmm. dimbale samay wayjur mm-hmm. kon du ngeen ma ko yàqal si mm-hmm. signé contrat man maay bëri face à face bi dangay ngay sol blouson produit sponsor bi te biir contrat yi da ci am kase sponsoring kon du ma nangu ngeen di ma ko yàqal gàllaaj yi ñuy sa xëppaate ñu indi ay violence moto yi dar la mu doon mbooloo mu indi mu indi histoire bu continuer mën naa dem ba sponsor yi daw beneen bi mën naa tax doo am doo am lieu boo ko defee te su boobaa nag yéen du ngeen yàqule man maa yàqule hmm. mbëri ñoo war a jël yooyu responsabilité hmm. mais duñ ko jël dañuy bàyyi accompagner ànd ak accompagnant yi ànd ak ñoom di yàq di def violence loolu moo taxoon CNG arrêté ko mais nag promoteurs yi waxtaan nañ hmm. ak compo ak composante de la lutte yëpp ñu toog waxtaan ba trouver terrain d'entente mais li li ñu xaatim mooy face à face to face boo amatee mbër mu mag mi moom doo ngay ñëw ak ménager danañ ko bàyyi mu ànd ak benn accompagnant mais du doon mbër bu ne en activité mën naa doon dirigeant wala sa frère yi kenn koo xam ne du mbër mën naa ànd ak yow dañ fay tereet xëppe ay gàllaaj loolu daal lañ tënk bu dee combat ndaw yi nag mbër mi doo ngay ñëw ak ak ménager hmm. loolu lañ mujj tënk daal xam naa ne fan yi CNG dañoo tukki woo dañoo génnoon mais daal fan yi loolu danañ ko yaatal ba école de lutte ak écrit yëpp xam yan matukaay la ñu jël hmm. pour face to face mën a am loolu nag bu amee démb promoteur bi waxtaan ne nag ginnaaw ba dañoo war a dugg ci koor gi hmm. te su boobaa dana am sax ay émission mais beneen formule lay doon Euh, dama bëgg présence su ñaari mbër yi ñu toog wax. Mhm. ñu wane ne combat bi taxaw na. Mhm. ma ne ko noox loolu mën naa ne mais problème bi mooy mooy bi ñuy réunion bay jël mesure yu bees yi maa ngi toog j'étais présent. Mhm. du ma nangu indi sama mbër mu toog ak la daguerre mu am coow su boobaa CNG dañ may xam max bi ñuy nas lii. yaa ngi fa woon toog yaa ngi fa woon kon da ngaa def lu la neex. te mag day moytu yenn yi bëgguma làmb jàll émission émission bi jàll. face to face bi jàll commission règlement et discipline woo ma di ma entendre loolu kilifa gudd na da nga koy moytu ma ne ko nag ginnaaw bu buñ xasee signé. Hmm. partenaire lañu. nañ seet solution bu ñu def boo xamante ne ni message yi dina jàll. Hmm. nga jaay sa affiche wane ne taxaw na te te du am problème ci lañ dugg décider loolu nag moo tax ma ma ñëwee Mansour ne ma la da ñëw na ànd ak Mohamed Aane ñu ngi ci kaw. Siteu ñu ngi ko bàyyi ci suuf ma ne ko nag léegi Siteu boo gisee ñun ñoo teel a ñëw. dañu bëgg Lac de bu ñëwee ñu laaj ko ngeen posé ko ay question bu ke bu paree mu signé contrat moom ak manager mhm. su paree nag ñun ñu doog a ñëw Siteu doog a ñëw mhm. ñu doxale ko noonu te defe naa ne message yi jàll na yéen ñëpp suivre ngeen ko mhm. kon mën nañu éviter violence bi teewul nag ñu wax ak xam lan mooy face à face pour jaay événement la te dafa bokk ci contrat bi boobu ëllëgee danañ fexe ba du yàqu mais daal loo ci mënti dégg waa jàmbaar ficelé nañ combat bi. Mhm. lancé nañ sax benn seen seen benn site. boo xam ne da leen di accompagner pour couvrir seen i événement mhm. te nag jamono toll na foofu comme ni ko ñeneen ñi amee. te loolu dañ koy rafet ndax gis nga waa Leewtoo yi dañuy tëgg làmb. Mhm. ànd ak Pape calis ñoom lancé nañ benn site. boo xam ne da leen di accompagner ba boo soxlaa dara ci euh, mbëri ci lu jëm ci. affaire combat bi dañ ciy waxtaan ak ñoom. mooy jàmbaar production. ubbi nañ benn site léegi nag dañuy nag taxawal combat pour ma alimenter seen site. seen am solo. loolu daal mooy dafa xewoon euh, démb euh, mm. fii. mais combat bi taxaw na. mais père lan moo leen poussé ngeen jël euh, Lac de Guiers. waaw Lac de ñu poussé ko mooy dafa am ay jàngatkatu làmb. Mm-hmm. surtout Moussa tegale ñaari defet mm-hmm. da def dafa def xam nga bi mu jógee ci Sarko. am Coow dafa jël Sa mm-hmm. ñu ne bu daanee Sa day dem cour des grands. yàlla def mu daanu ci saa Thiès jël sos dóor ko mu daanu di demaat pour dem cour de grands bëre guy guy gi daan ko waaw mu jëlaat Papa Sow daan ko ñii test la def na ko ñaari yoon waa tey bu ko réussir fu mu jëm du yëg ci kaw waaw cour des grands la yëg jëm kon jeex na nag moo tax léeg-léeg naan non diis na war koo jël ma ne ko nag man mënu ma comprendre yéen seeni xalaat yeen da ngeen ne bu daanoo war na wàcc suuf ba rek ay Moussa Ndoye ba rek ay jën kayre yooyu ngeen doon wax hmm. mu daan jël lat ngeen ne lat diis na léegi lan ngeen bëgg et puis mënatul bëre combat bu yomb. kase yéen koy fay ak mbooloo mi koy topp non combat yu diis rek lay bëre. Hmm. moom nag na ko xam sóor ko yokk dooleem yokk taxawaayam xam ne adversaire bi muy jël neexul a bëre. Hmm. Hmm. bokk na ci VIP yi gën a néew ay défaite. waaw la duggee. taxale bu jafee bëre la te daa am fula te il est sël seul wala bëriwu ci ay morom yoo xam ne amul combat yi ëpp muy voyager te bu ñëwee ci làmb ji amul benn. moroomam mu koy ëpp doole wala nga gën koo pare physiquement kon moom xam na nan lay witee doole xam na nan lay waajee ba kon moo lay wan ne am nañ adversaire de taille. mu nekk mbër moo xamante ni. mbër mu défensif la. mbër mu défensif non daa défensif bi sax ñi xamul na mhm. moom dafa mën a bëri rek naan la ndax soo ko bëggee yegg fu mu mënul day bañ mais saa wu amee action da koy exploité am na mbër yu bëri dina song bi. bi bëri mhm. ñoom mbër yu bëri moo leen jëli. mais gars yi de bu ñu waxee dara rek mooy kon danaa daa défensif daa défensif mais bu ñu la woon bu la tegaatoon palmarèsam mbër yu bëri moo leen song mais dari nag du la may dara boo ko yeggee du nangu nga yegg ko. que démb si biir si biir si biir euh, communication la dëgg mm. moom mooy nee mooy soogay am bëril mbër boo xamante ne am na taay comme si të ak gabareem. waaw xam nga moom mën na ko wax rek mais xam nga ku bëreeg ay tafaatin. Mm. moom bëri na ak ay tafaatin loolu wax la rek xam nga mi ngi commencé dugal dugal ay piège nante la xam nag moom expérience bi moom ak Siteu mais ku bëreeg Tafatine Tafatine macha allah. ku mm-hmm. bëreeg moom euh, ak ndaanaan yi mu bëreeg yëpp moo lay wane moom bëri na ak champion bu ne. daa d'ailleurs bëri na ak Ama Sène xëy na Ama Sène ak Modou Lo. kon instant yow conseiller nga si li mu wax. pour bañ a pour bañ a tombé si piège yu piège yu Lac de Guiers. loolu lay jëriñ bu ñu xamee fa nga jëm doo yegg. parce que dégg ah, naa ko dégg naa si ne. sama manager moo ëpp gën a xam làmb ci réew mi. ah na gaw maa gënumaa xam làmb ci mais xam naa ci tuuti nag xam naa làmb xam naa ci tuuti. ci daal nee na moo gën a xam làmb ci réew mi. ah xam naa moom ci ma moo la ñëpp muy topp xam naa ci tuuti xam naa ci tuuti waaye daal xam naa ne. Mhm. booy dem xare doo doo wax say plan nag doo ko wax publiquement mais daal lépp loo xamante ne nii. dañ <coughs> ko defee xalaat nañ ne dinañ ci am ndam. Mhm. dinañ ci ànd ak staff ndax bu njëkk ba wéetoon naa ci. Mhm. da ànd naag sama écrit ak waa Jàmmagën yi mhm. mais léegi nag Siteu Siteu famille Siteu borom dëkk bi mhm. Siteu ñu naan ko Yalming Siteu international ndax fu ne lay dem fu ne la may supporter mhm. moo tax sax combat bi yàgg ndax bu njëkk ba dama daan jël xaalis rek ne ko combat bi baax na jeex na mu ne ma père amul problème mais léegi foog nga waxtaan ak staff bi ku ci na nga jox ko wàccuwaayam jox ko cëram ñu toog ba tënk dara moo waraloon combat bi yéex kon moo lay wan ne combat la boo xamante ne nii daal xam nañ ne du yomb nag. Mhm. mais ñun bëgguñu lu yomb. Siteu mënatul bëre combat bu yomb. loolu moom c'est clair. wax naa ko naa ko mënatoo bëre combat bu yomb. te moom xam na ko. Mhm. mi ngi ciy waaj di daje nag daanaan. Mhm. waaw koo xam ne du la may dara. day indi doole day bëri ci fulla day bëri ci fayda te neexu la bëreel waaye ñun bëgg nañ bëgg nañ de moo tax ñu jël ko mais euh, démb def nañ seen cérémonie de présentation Siteu communiqué Euh, Lac 2 tamit communiqué ñaari mbëri seen communication ko gisee. waa gis naa ñu waxante. Mhm. si te sax benn instant ne na ko damay jël si revanche. Mhm. ñu ne ko ban revanche ngay jël si mu ne nees. ak Yékini. ak Yékini mhm. ne na ma nees moo ma indi lamsaar di suma père di suma mag Yékini di suma nijaay te Lac de Guiers moo mujj bëre Yékini daan ko Yékini tekk ngeen moom moo tax mun na ko revanche laay jël si. nee si dafa ma yoral ñaari bor la ko yor. waaw ah, waaw ñaari bor la ko yor ñaari bor. pare daal ne nag ne lat danaa ko feeñal euh, lat ne ko dangaa tuuti ci feeñal ma. feeñal boobu ba feeñal la. waaw feeñal day wane ne rek say erreur yi tax gars yi mënuñu laa daan man gis naa ko. foofu hmm. si di waxee xam nga làmb rek moom. Euh, euh, communication dafay am solo. Hmm. ndax ay strat ay stratégie ngay teg yoo xamante ne nii. pour jéem a déstabiliser sa adversaire mm. déstabiliser sa adversaire mm. mais daal loo ci mën di dégg mm. euh, niñ communiqué ñoom ñaar gis naa nag dal gi mm-hmm. lat nee na xale bu yaru la xale bu mën a def social mm-hmm. xale la boo xam ne bëgg naa ko ci doxalinam jox ko cër daye looloo tax ñu ne mayee chance ma ne naa ko may chance mm-hmm. waaye nag géewu làmb ja moom nee na beneen affaire la te su ma juum dem na mën na ko sax danaa ko may tuuti temps rek mais bu ñëwul man maay ñëw kon moo lay wan ne combat la boo xamante ni si ne nag ne ko boo ñëwee di nga ma fa fekk. Mhm. combat boo xamante ne daal coow li commencé na te dara xewagul ah dara xewagul mais coow li coow laa ngi commencé. Mhm. ci diggante ñaari mbër. mais dégg nañ si communication la ak mu ne mbër yi mbër yu mag yi dañ koy daw. Mhm. Euh, loolu noo ko gisee. waa xam nga làmb moom. d'ailleurs moom da ci am ay mbër yoo xamante ne dafa yàgg bëgg a bëri ñoom te nangu ñëw bëri ak moom. mais du mbër yëpp nag ndax moom moo moog jee dafa am lu tax du ñu du ñu bëre. Euh, mooy waa mbuur gi. Mm-hmm. xam nga mbuur soose yi dañuy jàppale bombardier. Mm-hmm. et nag la de Guiers côté boobu dafa bëri ay mbokk d'ailleurs ñoom looloo tax du ñu mm-hmm. beneen bi ci des. VIP yi su ma juumul Gris Bordeaux dong la ci bëriwul ak moo tax day def sorte bu ne naan ko danga maa ragal ak xam nga maag nangam nangam mais daal Gris rek laa gis bëriwul ak moom mais budul loolu bëri naa ak ñëpp. bëri naa ak Modou ak Balla Gaye bëri ak Tapha kon moo lay wan ne moom VIP yi nga xam ne ay moroomam lañ bëre naag ñëpp. Mhm. Gris Bordeaux dong la ci bëre wala. waaw mais moment bi moom bëggaatoon na euh, Modou Lo ñu leeralaat Modou Lo ne ko bëri na ñaari yoon. Mhm. niil benn yoon. Mhm. ma daan la benn yoon par décision arbitrale. dafa jot pour ñu yaatal làmb ji. Euh, euh, pour pour pour pour pour may suñ xale yi chance. suñ rakk yi chance. d'ailleurs loolu tax Modou mu dem signé jeeg Ama Balde. mu am problème. Euh, ndax blessure bu mu amoon ama jël avance su Gris Bordeaux mhm. mu walbatiku nag dëggal la mu waxoon may booy ñaar chance ñu ànd ca Gaston production làmb ji foofu la foofu la toll fi mu toll mooy làmb ji dañ ko war a ubbi mhm. Tapha wax na ko démb ci émission bi ñu doon def Sen TV mu ne dama leen di suivre te dama gis ngeen ne ci kaw dafa am ay champion yu bàyyi ak ñoo xam ne leen dese pour ñu bàyyi bëreetul kon jot na pour ñu may xale yi chance looloo tax hmm, pare na moom nee na damay xale chance nee na bëgg naa bëre ak samay morom waaye bëgg na danaa bëgg rëg-rëg buñ ko doxee ak samay staff buñ jiboo ma jël hmm. Sa Thiès buñ ko doxee ak samay staff ma jël ndax foog ñu yaatal comme ni ñu suñuy mag defaloon hmm. ndax dan ñoo tàllaloon loxo pour ñu fekk VIP yi ci kaw euh, may dégg ci communication si te euh, mu ne Lac 2 examen de passage maanaam jaar jàll la tey jii propos yi nga xam ne moom la Siteu wax yow ban lecture nga ci am. waaw xam nga loolu lépp teewul Lac de moom du du du mburu suukar ndaanaan la mais c'est juste day rassurer nit ñi xam nga booy jël combat ñu naan la ki nga jëla la man moo la pour doole mën a koo daan foo nga wan nit ñi leen. Mhm. loolu taxul ma jël ko. Mhm. gëm sama boppa xalaat ne mën naa koo daan moo tax ma jël ko foo foo foo foo tax ma wax loolu. Mhm. waaw parce que jëluma ko rek pour bëgg a bëri la de dama am yàqin ne mën naa am ci moom ndam. Hmm. looloo tax ma jël combat bi looloo tax ma. mais démb dama la dégg. Euh, hmm. sa réaction. Hmm. waaw. <laughs> yaa ngi ree daan Lac de Guiers mu bàyyi bëri yow loolu si foo ko teg. Euh, non xam nga loolu maa ngi ko waxoon ci euh, ci ci ci Papa Sow mais bii waxuma ko dama ne. li suñu rêve. du bëreeg Lac de rek. suñu rêve mi ngi ci doon roi des arènes kon gëm nañ ne war nañoo mën a daan Lac de mm. foofu li may wax nit ñi mooy nit ñi ne ñun mënuñoo gëm daan Lac de ñun gëmuñu loolu liñ gëm mooy war nañoo mën a daan Lac de ba dem ba dem dooni roi des arènes foofu laa waxee waaw parce que man combat bu ci ne communication ba ma ci def damay rassurer nit ñi rek ne leen seen mbër mooy Yelming mooy borom dëkk bi <laughs> te gëm na boppam Siteu ñeme na combat bi bëgg na ko. Mhm. donte ndaanaan la ñuy dajee nag. Mhm. nangul nañ ko ndaanaanam. Mhm. waaye ki ñu yor du n'importe qui. gis naa sax léeg-léeg mooy leen waa lu tax ngeen Lac de Guiers Lac du ngeen wax ci man. man la Siteu man la